asalaamaaleykum mbok yi ñi ngi waat fi ci terrain handball bu Renaissance club bu Tivaouane donc ñu ñëw fi seet si leen par rapport ak seen préparation ci Coupe d'Afrique bi nga xamantene war nañ fa dem teewal fa Sénégal aussi ñëw ak ñom ci parcours bi nga xamantene def nañ ko ba yalla may leen ñu mëna bokk ci équipe bi nga xamantene en Afrique ñom ñoo war dem fofu ci jongante bi donc ñi ngi ak le président chargé de la commission sportive mo ngi ni donc moom la ñu suñu micro nuyu nañ la.

Euh, waaw ren de gis nga l'équipe a été très rajeunie euh, waaye comme ni nga ko gisee bi nga ñëwee ci terrain bi yaa ngi fekk xale yi ñuy ñuy entraîner xale yi di entraîner ñoom ñooy grenier wu Renaissance handball club de Tivaouane moo tax duñu ñu am problème pourquoi parce que match bi passé rek y a eu yoo xamante ne dugal nañ leen dans le banc. dugal nañ dans le bain quatre joueurs xamante ni joué nañ ci seniors ce qui veut dire que d'ici déwén il y aura 6 ou 7 joueurs xamante ni dinañ an intégrer l' équipe euh, l' équipe senior euh, loolu loolu fi am euh, plus les seniors qui étaient là ci loolu ci la ñu préparé une équipe ce qui veut dire que l'équipe est trop jeune mais alhamdoulilah, on a fait deux matchs dem contre Jamono à Dakar gagné par 3 buts d'écart ñëw contre Diadji à Tivaouane gagné par 11 buts d'écart donc je crois que que je parcours bi cette année pour le moment euh, prétendre aussi jouer les premiers rôles comme comme ni ko on va jouer pour essayer de d'être champion champion du Sénégal et vainqueur de la Coupe du Sénégal ren donc euh, par rapport au parcours de bi Coupe du Sénégal bokk ci équipe yi nga xamante ni en Afrique ñoom dañu war a mën a dem ca jongante bële ca Maroc. waaw mooy continuité bi xam nga dama lay wax ni la dafa am fu ñu jógee fi ñu jógee mooy ci laaj équipe bi ñu jox ñu ko donc il fallait montrer lan moo tax ñu ni jox leen ñu équipe bi. kon insuffisance yooyu ci fofu lay commencé euh, moo doon defar équipe daw biñ ko defaree ku ne xam na équipe bi c'était une équipe très sérieuse mu nek la meilleure équipe aussi du Sénégal l'année dernière ci lolu ci lañu démé en finale de championnat et en finale de coupe du Sénégal c'était pas évident contre Saltiga en coupe du Sénégal et contre Duc en en en en championnat muy équipe yo xam ku ci nek def nga minimum 40 ans d'handball équipe bi 10 ans la Donc donc y a y a y y avait une différence peut-être d'expérience Nous dem à Dakar arraché la euh, perdre final championnat arraché la coupe du Sénégal ce n'était pas évident pourquoi parce qu'en moins de 8 jours la perdre ci final finale, a de jëliwaat beneen final équipe bu fois d'affilée vainqueur de la coupe du Sénégal ce n'était pas évident Il ko de waral coupe d'Afrique parce que y a deux euh, équipes qui représentent le Sénégal c'est-à-dire euh, le vainqueur de la coupe du Sénégal et vainqueur du championnat muy coupe d'Afrique des clubs champions ak coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe bi nga xamantene day Maroc à à Oujda euh, du 5 au 15 Je lañuy mom lañuy donc ci ci ci li nga wax rek fa c'était pas évident parcours daaw mhm. parce que déjà nga gagné équipe bu mel Saltigué en finale ku ne xam na ni c'est des équipes qui xamante elles sont bien loties financièrement donc yéen nan ngeen peaufiné woon seen euh, préparation ba mën accéder ci résultat boobu. waaw xam nga nag bu wax des moyens mooy comme li ma la wax léegi fi ñu équipe bi on savait que c'était possible mais dafa am lu desoon loolu desoon moom la indi parce que y avait les moyens humains les moyens humains mooy ñan ñun kenn ku ci nekk bala xaalis di ñëw xale yi ak seen talent sérieux bi entraînement donc ce sont les moyens humains d'abord loolu la ñu njëkkoon a gën a gëm après nag bi ñu paree ci loolu qualité bi mi ngi fi bon donc léegi nag les moyens financiers bi ñu demee ba final suivre na parce que remercier le maire remercier ku mel ni Ablaye Ndiaye Ngalgou ku mel ni Abdou Ndéné euh, ku mel ni ku mel ni ku mel ni euh, Diop si ñëpp jàpp ci ah. ñëpp jàpp ci moyens ñëw ñu dem gagné ji saltige saltige dafa am lu desoon parce que y une marge de de de trente points d'écart boobu xalé ay xalé lañu xalé yi di progresser ñom ñuy ñuy régresser pourquoi parce que c'était une équipe vieillissante lii nii ñoom amuñu ko moy grenier bi nga xamantene dañuy préparer une équipe de l'avenir, d'avenir waaw ci lool nak ci la ñuy ba agsi ci sen niveau ñom xam nañ ko xam nañ ni xamone nañu ni deux ans en arrière parce que sen sen entraîneur wax na ma ko ni ma je sais que handball bi day ñibbi Tivaouane pourquoi parce que li ngeen di liggéey ni su ngeen ko bàyyiwul dans deux ou trois ans da ngeen di nekk da ngeen di nekk da ngeen di nekk au sommet de l'handball c'est ce qui est réel réalité bi bo xolé suñu capitaine d'équipe. dañuy wax ne dafa am expérience moy dafa wara a ci ñu wara bot équipe bi elle a 20 ans elle a 20 ans et elle a joué presque 5 ans ou 6 ans ci élite bi donc depuis cadet a commencé de jouer jouer na équipe nationale trois campagnes bo xolé amna amna ben campagne bo xamante équipe nationale Renaissance jox nako 6 éléments ñu dem jouer ju Coupe d'Afrique, Afrique ñuy dem Coupe du monde Sénégal Sénégal euh, Renaissance jox ko 4 4 4 éléments donc ce qui veut dire que qualité bi mi ngi fi dafa am lu desoon rek lolou desoon nak mom lañu indi muy touche bobu pousse ko parce que nit ñi toujours dañu wax xaalis xaalis xaalis mais je crois que aussi d'abord afa am war war am motivation qualité bi nekk fi bëgg-bëgg nekk fi après nak légui xaalis bi ko soog a aussi euh, le fait aussi ngeen rajeunir équipe bi est ce que lolou may na yenn joueurs wala joueurs yi nga xamanteni ay anciens lañ peut être mu may leen ay possibilité ñoom ay transfert dem ci yenen équipe yu gëna am taxaway wa xam nga fi mom Sénégal bu ñu wax handball bi dafa naan ku tànn renaissance wul mais nak lo gis. daaw ñuy jël équipe bi dafa bëri woon xeex biñ ko jëlee amuñu woon temps defaraat kon ren moo doon première année pour defaraat parce que daaw joué nañu quatre journées bu ngeen ko fàttalikoo ñuy soog a ñuy soog a euh, joué ñun donc est pas le moment di créewaat yeneen affaires mais nak dañu damay am lu may fatali parce que dama ci dégg ay beaucoup de choses mais amna ci ño xamanteni ni peut-être en tant que président de la commission sportive je suis très bien placé pour expliquer yenn affaire ci sunu ay tablette bi saison bi jeexee dañu def évaluation sur le plan sportif ñu ni am ay joueuses yo xamanteni ni mënatuñ fi pourquoi mënatuñ fi nek parce que dafa am dafa am ay comportement yu ñenn ñi am yu méngoowul ak comportement yo xamanteni ni ñun bëgg nañ ko ci sunu équipe dañoo dañuy dañuy dañuy bàyyi xel que ni on est à Tivaouane te te te fii la Seydi El Hadji bu fekkente ni dañuy dem sur le plan sportif wala sur le plan culturel wala sur le plan bu mu mën di doon bu mu mën di doon euh, buñ ciy dem aussi dafa am nuñ ciy demee mooy dañuy dañuy dañuy bàyyi xel dëkk bi ñu nekk ñu yor école boo xamante on a presque 80 élèves à à à gérer donc sport bi du yem rek foofu sur le plan éducationnel aussi xale yoyu dafa am lo wara def ci ñoom donc seniors yi nga xamanteni ñoy jouer ci équipe bi dañuy refléter dañuy nek miroiru petite catégorie bi xale yoyu nak bo leen bëggee yar bëgg leena jangal dafa am ay pratique yo xamanteni ne doo ko sanaan ci sa équipe lool mo taxone on avait ciblé des choses yo xam dañ ñii dañ leen di dégager ci équipe bi pourquoi parce que pratique yi ñi nek bokul ak ñun lu ñu bëgg fofu la affaire bi démarré légui nak lool nak boo def il faut ta ñu nek des choses confirmées des choses de de haut niveau des choses yo xamanteni ni fuñu joggé jógee turu dina fa am c'est ça la réalité mais nak dañu ni boy defar da ngay melni ku yaq lolu mo indi lolu après ci lañu démé ci école yi wo élèves yi ñu ñëw ci terrain bi ñu former leen jël ñi nga xamanteni seen jikko may na ak ñun liñu soxla ñooñu ñu tok commencé nak di entraîner amna ñu dem nak ño xamanteni dañu bëgg dem pourquoi parce que yeen say sa xarit dem té mëno baña dem nga dem amna ñu ko regretter mais. kenn ku nekk sa choix bi ngay def soo paree da nga koy assumer ñun choix bi ñu def assumer nañ ko mooy c'est de faire de cette équipe une équipe boo xamante ni sur le plan sportif day progresser sûrement et lentement mais aussi sur le plan éducation aussi dafa am fu ñuy teg xale yi ba suba seen parents yooyu ñu leen jox xam ni seen doom yi am na lu ñu jaral. donc léegi ñu dellusi ci actualité bi muy compétition bu mag bi nga xamante ni yéen a fa war a teewal Sénégal. Mhm. ci Maroc donc il fan ngeen toll préparation déjà. la préparation bi ñu mais xam nga euh, dafa bëri ay parce que je vais aller droit au but Si nous jógee la coupe du Sénégal gagné on doit aller en Afrique mais on n'a pas les moyens d'y aller Nous dem ci autorités yu ak qu'est-ce qu'on les a dit on les a dit que nous, ñun dañu équipe bi qualifié coupe d'Afrique mais ce problème pas le problème. Ce n'est pas le jaan na les moyens d'aller en Afrique. Ce qu'on am c'est de jouer au Sénégal fexe nañu le Sénégal gii ñu teg fi tank. mooy final championnat gagner la coupe du Sénégal c'est la seule équipe bu ko defoon daaw donc maintenant qu'est-ce qu'il faut pour aller en Afrique ce sont les moyens on l'a pas Nous togg ak de kenn ku ci nekk de ñu le maire a dit une chose Si bu ngeen gagné bu ngeen représenter Sénégal te demu leen sunu gàcce la moo ko wax ñëw ci rajo bi waxaat ko on sait qu'est-ce qu'il y a à faire ok donc on s'engage mais si on dem ñun ñi wax donc c'est sur le plan sportif sur le plan matériel de mi ngi fi entraîner, yi entraîné c'est à eux maintenant de débloquer les moyens pour permettre à Tivaouane d'aller jouer le premier rôle en Afrique parce qu'on va aller maintenant pour découvrir l'Afrique Si lan moo manqué formation pour en Afrique d'ici trois ans ou quatre ans ñu gagner une coupe d'Afrique mais maintenant quand les moyens ne suivent pas faut rek nga mën a waxee bi mu ñu déglu ko amna nak nag benn marché bu fi jaar une semaine deux semaines bo xam ñu kenn ñun tam ñu top. mais on s'est engagé parce que maire mo guéné un million trois jox ko euh, la fédération pour ñu engager Sénégal donc donc engagé na Tivaouane maintenant diggante boobu dégguñu ko ba mu euh, sept jours ci lañ defee benn message wane ni kat ken engagement yi ñu jëloon mënatuñ ko pourquoi mënuñu ko parce que ñi ñu waxoon déggatuñ leen il ah, y a eu des réactions parce que nous bindaloon nañu nous arrêté des lettres nous avons beaucoup de société nous avons beaucoup de gens qui nous mais c'est à eux maintenant de suivre ces dossiers pour que l'on mën parce que le département de Théaon a li société, regorger ci ay sociétés a muy regorger ci ay moyens je crois que 15 millions bu une équipe en Coupe d'Afrique warul poser problème mais il day a volonté bi bon je le remercie au passage encore le maire parce que taille, je crois que. Euh, amna lu mu joxé pour que ñu defaral xalé yi seen ay passeport régler yenn yenn détails donc mel na ni mi ngi ci ñun nak fi ñu mëna rek lañuy moy fi on s'entraîne régulièrement jox nañ ñu ñu ngi defaral xalé yi passeport à partir de demain ñu déglu len ñu déglu len parce qu'on va aller représenter le Sénégal Babacar yorul 15 millions yu mu génné man yoruma 15 millions yu ma génné le président Papa Saer Diagne yorul 15 millions yu mu maintenant la commune de Tiawan bi nga xamanteni mom lañuy porter pour yóbbu turam ci biti mu porter Sénégal pour le turam ci biti je crois que mm, Sénégal, le ministère que la fédération que la commune et les bonnes volontés et les autorités de Tuaon, nous allons porter ce combat en ce moment parce que nous sommes tous pas gens, demee ba fa nga mën a ñeneen koy jël parce que déjà comme les gens wax si ne engagé wu donc mais n'y a pas les moyens pour y aller. mais vraiment est-ce que. am ngeen yeneen moyens yu nga xamante ne yeneen voies de recours yu nga xamante ne rassuré na leen à ce que d'ici le 5 boobu ngeen war a dem c'est-à-dire autorité yi dinañ répondre ci seen appel. waaw man je crois parce que maire vraiment bi ñu bi ñu bi ñu defee loolu bon demb ak tey bërki demb ak tey moom vraiment mi ngi woote mi ngi laaj. parce que bu ma la waxee ne la tey joxe na xaalis boo xamante ne mooy defar passeport xale yi mooy que kon engagement boobu bu jëloon ba léegi mi ngi ci te ci sama njort bu rafet bon parce que musuma wax mu dañ. ci sama njort bu rafet dina ci topp ñooñu nga xamante ni jox nañ ay dossier dina ko dina ko suivre ba ñooñu peut-être génne li ñu war a génne ba équipe bi mën a déplacé wu pour aller en Coupe d'Afrique loolu gëm naa ko parce que démb ak tey ngi woote te mi ngi mi ngi ciy jéem a def kéem talaay kàttan. mais mais au-delà du maire aussi ku ne xam ne déjà ngeen war a représenter Tivaouane ci lu loo xamante ne Afrique la ñor donc loolu c'est une fierté ku ne xam ne kon ku dëkk a dugal sa loxo les autres autorités ñoom ban taxawaay lañ am. benn taxawaay. kenn ku ci am benn taxawaay man xaw ko ci xëy na Babacar su amee information ba après dina leen ko wax li ma yëg ba yëg daal mooy li fi dugg muy les 1 million 300 qu'on a remis à la à à à la fédération internationale d'handball les 500 000 yi nga xamante ne moo war a defar les passeports des des des joueuses ak yooyu c'est le maire moom moo ko génne te moom it mooy woote mooy laaj ba xam situation yi mi ngi changé wala changé wul. te it lettre yi ñu bindit moo ko signé ci loxoom te mooy woote pour ñu seet nan lañ ko lijjantee man foofu foofu ci information yi ma am non foofu laaj tool. mais man nga confirmer ni dem nga les les autres autorités dem ngeen ci ñoom. non amul kuñ ci toogalul Seynabou Gaye lañ njëkk toogal dem nañ ci Abdou Ndéné toog moom bi ñuy toog moom junj nañ ko peut-être ci Coupe d'Afrique bi mais terrain bi moo taxoon ñu wax moom Ablaye Ndiaye ngal gu toog nañu ak moom bon ñi demoon aussi nee nañu vraiment woo na le ministre am na ñu mu woo waaw toog nañu ak ñoom. kon donc ñi nga xamante ñoo ngank dëkk bi nek des autorités tok nañu ñom ta xam nañu ni équipe bi day dem Coupe d'Afrique maintenant six jours mo ci des ñi ngi déglu si c'est possible d'y aller les moyens sont là on va y aller pour représenter Tivaouane pour représenter le Sénégal muy lolu bu fekkente ne les moyens ne suivent pas on va continuer notre championnat bu amé ay sanctions yo xam day dal nak ci kaw Renaissance wala mu dal ci kaw Sénégal bu boba ñi engagé Renaissance dinañ ko dinañ ko assumer par rapport aux entreprises qui sont dans le département est-ce que aussi tu choses à faire taxaw. xam nga mooy li ma wax je xam nga euh, réagir mais jox nañ a des lettres wax nañ leen li bon le maire relancé na lettres, xëy ne dinañu dinañu réagir parce que même Taï, ko ma même Abdou Ndeye ne mi des ci pour pour relancer mais xam nga ce que je déplore c'est que une équipe qui doit aller jouer en Coupe d'Afrique ce problème devait être réglé depuis longtemps. Pourquoi Parce que meeting de femmes, les politiciens vont débloquer 25 ou 30 millions pour le meeting Bob. on a 40 millions, nous 40 millions pour l'eau. Aïe d'une formation presque de 7 ans 8 ans, nous sommes au sommet du Sénégal, ou en Coupe d'Afrique, nous sommes en lenteur, c'est ce que je déplore. loolu moo dul moo loo xamante ne lu parce que koo ciy woo du la jël pourquoi parce que bu fekkente ni personnellement ñun la man personnellement amu ci kenn koo xamante ni dinaa la woo di la wax nangam wala nangam wala nangam mais nag quand il s'agit de la ville ñoom ñoo ko ŋànk ñoom lañ ko dénk ci ñoom la ñuy dem wax leen ni leen nangam ak nangam ak nangam bis ñu joxee dëkk bi jox ko ñeneen dem bu boobaa bu bu bu laaj jotee duñ leen ko laaj ci ñooñu la ñuy dem laaj leen ko parce que laajuñu leen loo xam moom la ñu yor mais dañ leen di laaj li nga xam dëkk bi moo ko moom li ci sport ñu jël ko delloo ko sport bi C'est important. Maintenant, qu'en est-il euh, pour la fédération Pour la fédération, je crois que bon, nous, Def euh, Seydou Diouf a appelé euh, le ministère, je crois, Babacar. nous, ils vont nous donner les billets d'avion. Ils vont nous donner 18 billets d'avion, on va en compléter. C'est ça. Tu l'as limité ou quoi. non tu l'as limité ou boy di les billets d'avion. mais tamit quand on parle du ministère nous, avons les les 18 billets d'avion aussi C'est à saluer parce que tu as nga ñëw mën la donne 13 je te donne 12 mais comme nous nañu lolu buñ ko accompagner won ak peut-être enveloppe financière day day day mais je crois que ce c'est pas important ce qui est important que la fédération bu le transport le département de Tivaouane mënul jël 15 millions de francs pour les frais de cette équipe pour aller jouer en Coupe d'Afrique non je crois que Fof moom jarul tudd jarul tout le koo département parce que le département Tivaouane usines yi fi ne kenn ku il y a ay mbir xew.

Je koy wax tous les clignotants sont tout rouges actuellement suis dara amu fi Il y a une semaine dans une semaine nous au Maroc Nous lancer un appel à toute la population surtout la population sportive la solidarité sportive dañ ko sentir actuellement Dites-vous, je suis basket di ci football bi taekwondo di sport au sein de cette commune de pour voir leen ñu ñëw derrière Renaissance pour au moins prêter comme main forte parce que on en a besoin a une discipline yi nous hisser le club ou la commune au plus haut niveau Ce qui fait une discipline a accompagner ko accompagner pour nous au-delà des autorités aussi je dis en particulier le maire di saluer de passage par rapport à démarche yoo xamante seen tout le temps mi koy entreprendre pour que équipe bi dem coupe du monde ñu bañ koo bàyyi ak moom moo tax ñuy avons ñëpp ñoo xamante ne bii dañ koo war a ñëw ñu jàppale parce que metti na metti na moom mi ngi def li ci vraiment depuis le début ba tey mu ngi ci nekk duñu accompagner mais dañuy sentir ni dafa metti euh, boo xoolee la avait mis en place un comité préparatoire bo xamante sen bi bépp tuyawone waa la ci dugal ño xamante sen bi nekkuñu sax dans le milieu sportif arrêté bi mu génne pour mettre en place pour mobilisation des ressources yi nga xamante sen bi mo ñu wara yobbu coupe d'Afrique benen bi la caution bi nga xamante sen bi moo doon condition sine qua non bo xamante sen bi boko déposé wul do dem coupe d'Afrique. mom moko moo aussi mu nekk à hauteur de un million trois pas plus de même pas deux heures de temps mu gagnons aussi une enveloppe de cinq cent mille francs mettre ko à notre disposition pour que au moins les papiers administratifs notamment euh, les passeports pour les aussi Coupe d'Afrique donc moi je ngi aussi il nous a mis en rapport avec toutes les presque euh, presque sociétés pour que nous aussi parce que c'est communal. mais encore ñu autorité yàgg nañoo jàpp nag ci équipe bi autorité yépp laay wax yu Tivaouane jàpp nañ ci mais aujourd'hui encore soxla nañ leen pour ñu prêter main forte ci commune bi ci équipe bi parce que équipe bi ay xale yu jàmbaar lañu ay xale yoo xamante ne bi dañ leen a war a récompenser parce que ay effort lañ def ba egsi fii ñu egsi et c'était pas évident soo xoolee terrain bi ñuy entraîner kun la équipe bi mooy war a dem Coupe d'Afrique wala kuñ ñu la équipe bi moo gagné coupe du Sénégal wala kuñ ñu la équipe bi moom moo nekk champion moo war a nekk vice champion du Sénégal da nga naan c'est pas possible. maintenant mi ngi noonu donc ñoom ñëpp nañ ñëw jàpp ci pour yóbbu équipe bi ñu dem coupe d'Afrique suñu objectif. parce que ñun ci loolu lañ bëggoon ñëw c'est-à-dire sur le côté infrastructurel est-ce que ci côté infrastructure vraiment c'est-à-dire équipe bi dotée na infrastructure yu ko permettre au moins c'est-à-dire mu gën a rehausser le niveau. amul année bu ñuy toog un terrain bi une mise en demeure de la fédération pour que nous puissions recevoir mais nous, nous toujours parce que eh, c'est un terrain qui est c'est fonctionnel parce que nous ngi mais ce n'est pas réglementaire quoi qu'on puisse dire déjà dès demain nous allons a ci terrain pour des pièces pour def au minimum 4 ou 5 jours parce que fa ñuy dem Coupe d'Afrique ballon yi ngay joué du bokk ak ballon yi ngeen joué Il euh, tap aussi tap yi ngay dem joué il faut que yi adaptation donc ci terrain donc il faut que ñu dem une semaine de le terrain bi équipe L'équipe ko parce que nous mënuñoo bokk ak équipe bu parce que même heure d'entraînement et puis même jour d'entraînement, il fallait ñu ait une infrastructure digne de ce nom pour que l'équipe moins équipe bu góor ñi nga à travers tout le Sénégal ñu mën leen récupérer waat pour ñoo bokk ak moom si vous avez un balle qui a duré 4 mois, c'est sûr que dans 2 semaines, le balle va être Je ne parle pas des dalles qui ont été c'est sûr que les donc vont utiliser pour un balle. Ce qui a été 2 mois, dans 2 semaines, chaque semaine, presque, j'ai changé les dalles, changé encore les dalles. Donc, le terrain. Chaque fois, la fédération mise en demeure, les gens ne peuvent pas recevoir. Mais comment est-ce qu'ils font Ils lancent un appel, ils envoient des devis partout autorité bo yaakaar ni mi ngi ci Tivaouane rek xamna ñun suñu situation bi ñuy dund parce que lu ñuy def en avant dañuy dem toog ak ñom waxtaan ak ñom expliquer leen la situation pour que ensemble ñu xol yeen solution lañ war indi mais je dis que ni mi ngi ni à l'état actuel fofu la situation bi toll donc mi ngi noonu. donc dañuy dañuy rafetlu sa wax rek di wat ci li waxon waxoon comme je l'ai tantôt dit parce que vraiment il y a de quoi avoir peur parce que une semaine qui doit une équipe qui doit représenter le Sénégal dans une compétition africaine et qui à ah, moins d'une semaine n'a pas les moyens financiers pour y aller je pense qu'il y a un problème donc comme nous dit ko Grecs, léegi rek di talalaat loxo bépp autorité bu aussi les bonnes volontés parce que nous avons na ñoo vraiment c'est des gens qui ont ni euh, sport dañ ko bëgg aussi yàgg nañ soutenir sport aussi donc on avons ñu à ce que ñu soutenir l'équipe. parce que soutenir l'équipe, bi soutenir Tivaouane c'est soutenir aussi Sénégal parce que ay réew ñoo fay daje donc loolu ñu ngi ci woo ñëpp rek benn joueuse bu nga xamante ne bokk na ci équipe bi nga xamante ne ñoom ñi ngi ci préparation war a dem représenter Sénégal fële ca Maroc di ab compétition africaine donc nuyu nañ la soxna si. Euh, maa ngi leen di fay euh, man la Birima Koumba Ndiaye joueuse Renaissance handball club de Tivaouane euh, capitaine. donc yéen fan ngeen toll ci préparation bi. ñu ngi ci préparation bi ñu ngi entraîné di préparer daal suñu Coupe d'Afrique. mais ban ban ban ban xalaat ngeen am par rapport ak bu bu leen préparé ba fii dégg ñu ne moyens yi wala xaalis yi nga xamante ne moo la war a mën a permettre ngeen dem nekkagu fi. waaw xaalis yi moyens yi nekkagu fi mais ñi ngi wax tamit autorité Tivaouane yi ñu jàppale ñu parce que soxla nañ tamit soutien seen soxla seen soutien parce que daaw rayante nañ def lu ñu mën dem ba euh, gagné coupe du Sénégal kon ñu leen wax lu dul ñu ñëw jàppale daal. léegi engagé wu ngeen.

ñun nak liñu wara a def ñu ngi koy def liñu wara nek a ngi ci di déglu parce que du ñun ñoy dem Coupe d'Afrique c'est la ville de Tivaouane qui va représenter le Sénégal en Coupe d'Afrique. mën nga ñëwul ci sanctions au moins autorités xam. ce sont des sanctions financières ak ay sanctions administrative mën na une suspension de l'équipe mën na une des amendes euh, pour la fédération mën na même une disqualification du Sénégal pour mon bañ a demati coupe du monde bi wala mu bañ a coupe d'Afrique Yo yep, mën na ci nekk doo ko xam parce que ñoom international ñoom ñoo la koy wax parce que avant ñuy def tirage dañ lay wax ni la il faut que déposer caution pour one ni tout est engagé te boo xësee ba engagé mënatoo deltu ginnaaw tey gis nga 15 millions yooyu ñuy laaj Bo demul di nga fay 20 millions mënoo ci dara loolu loolu loolu affaire bi affaire bi fofu la toll vraiment je vous remercie. donc kon ñi ñi ngi ñu ngi lay aussi di lancer walla appel di ci prof di diko jëmele ci bép autorité boobu nga xamante ne yaa ngi teewoon parce que ku ne xam na ni compétition bu mu mënti doon préparation mooy lépp et dit-on souvent que se manquer de se préparer c'est se préparer à manquer son action donc foofu la ñuy jaare wax ni rek autorité yi équipe bu mel ni Connaître ça, am ko sax am ko donc ñun avons ko déjà c'est une fierté té c'est à nous maintenant pour ñu profiter ci autorité yi fi aussi nañu gersu équipe bi nga xamantene ne na fi autorité yi fi nekk aussi tamit nañ nous ci seen loxo bu baax ci préparation bi yi nga xamantene ñom dañ ko soxla am les moyens financiers ak les moyens techniques que ça soit le monde doon dem jëmmal parce que c'est pas une affaire de localité mais c'est une affaire de pays mm. Sénégal la taxawal au moins ñu am ay raaya yoo xamante ni au moins dina jëmbal suñu handball bi am ko ci Afrique donc ñu ngi leen di jaajëfal.